ثم إن علينا حسابهم الله أكبر شرع الله الحمد الله الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم وأوصيكم أيها الإخوان لوجه من كفاني ذوي الحسد والعدوان بأن لا تفارقوا ما اختير لكم أبدا فإن مفارقته تجر لكم ألما وكبدا وأنهاكم عن فعل كل ما لم يتبين لكم كونه الصوابا فإنه مما يوجه إلى غيركم الأجر والرضا والثوابا ولا تطلبوا الكرم بغير التقوى fa inna alkarama huwa altaqwa wala tatlub wala tatlubu alizzata min gayri alazizi almuizz bi jaahi abdihi nabiyihi rasulihi alaaaz fa inna man adbara an illahi tabaraka wa taala ila siwah tarakahu maa nafsihi wa hawaah wa man aqbala ila allahi tabaraka wa taala maa alwasila qaada ilayhi kulla maa kaana yartaqi ilayhi min aljamil yaa ayyuha annaasu ubudu rabbakum ittaqi llaha xaytu kunt man kaana yuminu billahi walyawmi alaxiri falyaqul xayran aw liyasmut laqad axbara rasulullahi sallallahu alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam wa baraka axbara alsheykh alxadima anna man taaba min ummatihi qabla mawtihi فإنه يشفع فيه عند مميت ميته وأن من لم يتب منه توبة نصوحا فقد أمره من وعظه نصيحا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 moom mi nga xam ne moo fi toogal sëriñ Abo ak mboolem mbokk yi mu àndal sëriñ Abo it nekkal fi Cheikh Mahmadul Muntaxa yal na leen fi yàlla bàyyi te wéral leen te yàggalu ci seen gannaaw kaddu yi nag kaddu yi fàttalee la sëriñ bi ne mu ngi ndokkeel mboolem jullit yépp ak waa réew mi yépp ci bis bi nga xam ne ci la ñu nekk muy bis bi firndeel matuk weeru koor yàlla bu mu doon suñu mujj koor te lañ ca def mu néew mu bari yàlla na ko suñu boroom ful te laqal ñu ko fu yàq du yekk sëriñ bi nag ne nañ ci jànge gaawuk jamono ndax bu yàggutoo lañ doon séentu weer wi ku nekk di ko waajal kem kàttanam ba mu yàgg ñu ne agsi na ba mu yàgg ñu ne mat na foofu nag danaa fi dugal njàngalem nit ku ñuul mu yéeme wax nañ ne ci añaanante googu dafa am ñaar ñu dëkkoon ci ak kër ñu desee dégg njàngaleem sëriñ bi desee dégg njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa kenn ku nekk ne duutu jox loxo moroomam mukk benn bis nag kër ga di jommi nett leen wax kenn ba muy jommi ñu ne diw de mi ngi ci biir néeg bi génnagul ndax day nelaw mu gaawantu rek dugg ca néeg ba leewu ko génne ko ci bitti ba njommi te la jeexee ak lakk njom kër gu jommi mooy kër guy lakk ñu ne ah ndax yàlla gannaaw moom at yi yépp tuddante wuñ joxante loxo kenn ku ne sax ba bëti néegam mu jëm neneen ndax yàlla li boole leen mu ne déedéet defu ko ngir jubóog moom daa dégg ñu ne ku faatu ci lakk dem aljanna mu añaane ko aljanna joojee loolu dong nga tax mu génne ko waaye du leneen yàlla yàlla mos ci loolu mu wuute lool ak li amoon ci jamonoy saxaaba yi radiallahu anhum ajmain xare bu ñuy wax xare bi Yarmuuk jamono Seydina Omar ibn Xataab bi xare bi dalee dafa am koo xam ne daay jógoon di seeti doomi baayam ji mu na ci front bi ba mu ko wëree ba gis ko fekk mi ngee ko su ndox doomi baayam ji di ko jàmbat am ndox mu dem ba di ko jox am keneen ku dend ak moom ne ko naan ndox ndox doomi baayam ji ne ko jox ko kee ba mu demee ba di ko jox kooka yi ne ko jox ko kële moom mu ko gën a yittewoo ñu di ko joxlante ba ka muy mujjee dem fekk faatu na mu wàññi ko waat ku ñaareel ko fekk mu faatu mu wëlbati ko ci doomi baayam ji fekk mu faatu kenn ku ci nekk daal guuxus ndox soosu ñu soxla woon ba mu yégee ne moroomam a ko gën a yittewoo dana nañ ko ko yëti fa kenn faru ko naan ndax kenn ko ne da ko yéene moroomam ba far yàlla dogal lam dogal ci ñoom sëriñ bi ne nañ jël ko mujj ki te bàyyi ko jëkk kee kon boog sëñ mag bi nekkoon jëree mit te mujj nekk tubaa dund na ko dundin wu leer boole na aw nit ndab ci roy gi muy roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lépp def ca dogu yàpp du ma ne ndawal ndax ndawal lu bari mën na ko waaye yàpp ba mu ko ci defee ci guddi gi ku ko dab ku ko laal rek làmb ko ba xam ne moom la mu jox mu jox mu buux ko moroomam ñu di ko buuxante ba far kenn kenn ko jariñoo sëriñ bi ne mbaa jëfandiku ngeen ñu ne tubaarkal la mu ne yëtal ma ndab la ñu it ko ko mu xool ne lii lu tax kenn jëfandikoo ko diw ne man xam naa seen tur diw ne man da jot naa ko waaye damaa xam ne damaa jàpp a soxla ma jox ko diwit ba mu ko yëgee def noonu ba ba kenn faru ko jëfandikoo kon sëriñ bi nee nañ roy ñii ak ñaa te bañ a kaa kon dénkaane boobu la waxoon ne kenn ku ne fa mu jëm na ko yóbbu ku ci amoon ak mbokkam ab diggante bu aw nit jógee bëgg ko defar na ca gaaw nangu bu kenn di xool bët buy niroog bañ sax moroomam te bu kenn añaane kenn kañaan googu mooy ni ko leerale mooy ki añaan dëgg day fas day ñaan yàlla diw bu mu jot ci nangam mukk bu ca jotee mu naan yàlla na yàqu ci ay loxoom yàlla boo kenn jariñoo yàlla ci mu musal kon sëriñ baa ngi dellu di ndokkeel ñépp di ñaanaat koor gi yàlla bu mu doon suñu mujjug koor ndaje mi yàlla bu mu doon suñu mujjug ndaje ñi nga xam ne it yàlla dogal na wàcc nañ ci koor gi it nee na yàlla neen yàlla yërëm di ñaan yàlla it nawet bi nga xam ne ci lañu jëm te sëriñ bi joxe ndigal ñu war a tàmbali liggéey yàlla na barkeel leneen lu waay di liggéey it lu dul ay tool it muy di ci xëyee ko wàcc yàlla liggéey ba barkeel mu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñu borom mu bàyyi ñu fi suñu kilifa yi lu yàgg a yàgg yàgg te saa buñ xoolee gisuñu ci seen ginnaaw asalaamaaleykum wa rahmatullah amin amiin